Thank you.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 jar nañ ko jar na jàppale. ginnaaw ñaax taalibe yi waaye itam wan leen ci ban anam lañu war a gën a mën a euh, sàmmoon teg seen wàllu wér gi yaram ba mën a moytu li nga xam ne moom moo di Covid 19. daara Maam Baara Mbàkke ñu gën koo xam ci daara Xidmatul Xadim dañuy jëfandikoo jumtukaayu xarala yu yees yi ngir yegg ci taalibe yi waaye di xam fan la information yu toll ngir taalibe yi di mën a moytu jàngoro ji saa yu nekk waaye itam di xam évolution yi. sa ndax daara ja day information di ko tegal xale yi ndax xale yi internat la génnuñ dem fenn lépp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 jàngoro bi di coronavirus.